salaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi dalati leen jàmm ci seen best of de l'œil du tigre comme ni ñu koy defee depuis la fin de cette première saison dañ leen di dellu si rek ci li nga xam ne moo leen gënoon a marqué ci biir làmb ji tey nag Moustapha Guèye dafay dellu ci combat bi nga xamante ne moo opposé woon Ama Baldé ak Gouye gi doonoon combat bu doy waar nag loolu ci biir rubrique bi nga xam ne jël bi lay doon suñu fa jógee nag daal di léewtoo ak Souleymane Ndiaye di docteur en droit et en sciences criminelles ci biir alo docteur nag ñi ngi fay àndal cardiologue bi di Mbaye Paye moom nag dafay wax ci risque de crise cardiaque yi nga xamante ne ñoo am ci biir làmb ji tey nag best of bi doyen moo leen di andil seen maye bi juste avant le zapping loolu yëpp nag mi ngi ñëw léegi léegi juste après jingle bi comme ñu koy defee saa su ne dañuy tijji best bi ak seen rubrique jël bi tey nag Moustapha Guèye dafay dellu ci combat bi nga xam ne moo opposé woon Ama Baldé ak gi Gui doonoon bëre boo xamante ne coow li bari woon na ci ba ñaari mbër yi jotoon a maye combat bi sax ci biir face bi donc ñu ànd xool naka la ko suñu tigre bi jàngate boo xoolee fii ñaari mbër ñi sëy nag xool Ama Baldé dafa jël loxo ndeyjooram jox ko guy guy gi téye ci loxo ndajoor bi al ko càmmoñ bi moo tax ñaar ña ngay damante ay baaraam taxaw nag ñoom ñaar jàkkaarloo waaye ñoom ñaar nag xool làmb ji rek ñoom ñaar kii tànk ndajoor la jiital kii jiital tànk càmmoñ wax nañ leen fii waxati leen ko ne leen ñaari mbir bu ñu dee bëre kii kii jiital naa ko ndajoor seen ay tànk day jegeyoo waaye tànk yooyu noonu mu jegeyoo nag noonu la jafee pour coupeñ dal fa moo tax ñoom ñaar ñu nekk en garde ñu dem ama féqatu na rëcc waaye guy waa nga yóot loxo ba tey Ama moo jël initiative Ama muy dox ci kawam voilà fii Ama Baldé euh, dafa def semblant di dóor crochet gauche waaye guy gi mu ngi siggi tiim ko réculer parce que guy gi boo seetloo combat bu yëpp dafa déglu Ama Baldé muy bëree muy réculer maanaam tiim ko di ko photographier lépp Ama Baldé def mu yëg ko vamos fii nag euh, guy gi dafa bilimbaane maanaam euh, comme que Ama mi ngi ko teg pression topp ko di diriger combat bi moo taxoon mu xaw ko mel ni ko xaw a filé ba mu xaw ko wër ndomb waaye gubalee nag boo xoolee ba tey guy gi li mu jaxasoo jaxasoo ci combat bi yëpp tourné waat na jàkkaarloog Ama Baldé nii ba pare nag tàllal loxo càmmuñam bi di freiné Ama Baldé let's go ba tey Ama Balde mi ci course bi waaye xoolal rek saa bu ñu jàppantee rek Ama Balde nag dafa fekk ci guy gi ci mëninam saa bu ñu nee katam jàppante rek waxoon nañ leen fii ba tey encore une fois ñooñu ñoom ñaar ay la ñu bëree combat bi mu commencé ba bu mu jeexee lañ ko bëree fii Ama Balde jël na loxo ndeyjooram sëq ko ci euh, ngembu euh, euh, ki ñuy wax guy gi waaye jàppul ngembul de Senghor ko la jàpp guy gi tamit jël loxo càmmoñam sëq ko ci ngembu flanc droit ki nga xamante mooy Ama Balde donc fii booy xool Ama Balde moo am bras extérieur Euh, euh, guy gi mu am bras extérieur Ama Baldé am bras extérieur waaye actuellement fu mu ne nii ñu ngi bëre ci wetu ku nekk yaa ngi bëre ci wet gi nga mëne kii càmmoñ la mëne gis nga fii Ama Baldé jéem na ko xar ngéppeen guy gi rasu doon ñaari percute Ama jéem ko taf ba tey yóotu gañe ko rek ñoom yaa ay mbëru gañe lañu guy gi mi nga yóotu pour sëq ñaar loxo moom tamit Ama Baldé ngi dóor dóor na coup irrégulier benn guy gi nga koy jéem a bët waaye fii xam nga la ma neex Ama Baldé aussi liir na guy gi jàngal nañ ko guy gi nu nooy def ba guy gi la yenu xool mi rek Zeynab guy gi dafa jël ndax nit ki pour nga yenu ko da ngay bëtt ci pokataan ba pokataan ba mooy jariñ mooy jariñ pour yëkkati waaye pokataan boobu nga bëtt nag su waa gi dindee loxo ba da ngay yenu dans le vide donc fii guy gi dafa yenu Ama Baldé dans le vide ñu dem mu cëppeel ko ñu ñaar ku ne sëq sa gaño morom bëri jàppante gaño dafa metti la puissance de guy gi guy gi fu mu téye ba léegi nangu ko bàyyi Ama Baldé aussi fu mu téye nangu ko bàyyi Ama Baldé doon na benn coup irrégulier bi gi topp baax na lu mu def ko nag dinañ ci ñëw de xool na arbitre bi wax na ak moom wala xool na ko doon na foofu aussi crochet gauche bii coup bu régulier la parce que ci ci ŋaam la ko dóor ah, mais nag euh, coup bi c'est pas c'est tellement appuyé waaye guy gi moom mu nga sëq ñaar gañoom rek fu mu jàpp du ko bàyyi ama dil si waat na jàpp encore ay ñaari gañoom ku ne sëq na si ñaari gañoom guy gi dóor na beneen coup encore irrégulier an arbitre bi arbitre atte na voilà fii nag dafa am importance fi ñu attee nii di dem téere ya dagg na lu luñ la ñaanaloon nee nga kii li ma ñaanal lan la ñu ngay léew tawaat encore ba tey Ama Baldé ji initiative mais jé def Ama Baldé lu tax mu bëre 10 minutes di diriger combat bi ñu àtte leen ñu reposer trois minutes mu war a dellusiwaat encore di diriger combat bi pourquoi fii Ama Baldé newul tekk taxaw déglu gi ba xam lu ngi di liggéey Ama Baldé a l'air un peu fatigué fii gi si nga gi actuellement dugg na ki deuxième souffle la nga tibb mbër bu demee bay tibb tànk ak suuf nga xam ne kon kii euh, maîtriser le sujet ñu dem ñu dem ñu dem ñu dem Ama Baldé nga diriger mi ngi avancé ba de ci kawam Ama Baldé nga avancé ndax day bàyyi song voilà Ama Baldé jàpp na tànk Gouye Gui fii nag.